bonsoir chers internautes ñu ngi leen di euh, nuyu di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak suñu ay programme jaajëfal leen encore une fois alors euh, comme ni ñu koy defee ay bés bu ne seen émission tribune politique tey ñu dalal keneen koo xam ne dafa fare ci euh, parti bi nga xamante ni nag moo di grand parti bu Malick Gakou ñu gën ko xam nag ci turu Mor Diaw moom nag il est le coordonnateur des jeunes ñi nga xam ne ñoo bokk ci biir grand parti tey moom la ñu am comme invité fas yéene waxtaan moom ci li nga xam ne moo gën a fës ñeel actualité politique bu Sénégal Euh, lañ ci gën a fës nag bokk na ci kon coowal report euh, de l' présidentielle bi nga xamante ni nag euh, daanaka joxe nañu li nga xamante ni nag moo di proposition de loi ba ca bi pencum ndaw réew mi ba ñu daal di koy ba ñu koy adop ba ñu daal di koy adopté sax bokk na ci li ñuy waxtaanee mais également coowal dialogue bi nga xam ni fas yéene nañ ci dem ak yeneen ci ay ponk yoo xam ne moo ñeel kon tolluwaay réew mi ñeel actualité politique ñoom waa Malick Gakou ana lanu tey ji mooy seen plan de riposte nga xam ne moo ñeel euh, toxalub élection présidentielle yi moom lañ ciy sekkal waxtaan bu yaatoo yaatu su ko defee euh, laataa ñuy dikk ci poñ yooyu dañ koy bàyyi mu daal nuyu ak yéen su ko defee ñu daal dugg ci waxtaan bi monsieur Mar Diaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu également sa euh, teewaay suñu biir émission. maa mhm. bien. très bien alors euh, directement ci waxtaan bi la ñuy daal di dugg wax naa ko euh, ndax li gën a fës ci actualité politique bi bokk na coowal report élection présidentielle yi ñu naroon ko jàpp le 25 février euh, soo moyul bu fekkee ni conseil constitutionnel acté na ko donc dañuy dem ba le 15 décembre incha allah euh, tey jii ban lecture ngay def ci toxol bi nga xam ne toxal nañu ko njogante présidentielle yu Sénégal. à la limite amul benn qualificatif bu ñu ko mën a jox. à part mhm. unique et cynique. Mhm. parce que quand le président Macky Sall lui quand il a été élu. au mhm. suffrage universel direct. population yi dénk ko. mu ñëwaat laajaat en population yi dénkaat ko d' lui parce que si vous vous rappelez bien ces élections ont été contestées. mais teewul ñëpp rangé wu au nom de la république. tey bu ñu ñëwee ba mu war organiser des élections libres. démocratique et transparente. Mm-hmm. Mm-hmm. mais surtout inclusive defu ko. Mm-hmm. bàyyi ba à la dernière minute à la veille de l'ouverture d'une campagne électorale de la campagne électorale. mu taxaw ne dàq na élection yi sur la base de soupçon. kan la soupçonné son premier ministre. nee na moom la soupçonné ne day ger dafa ger ñaari. juge constitutionnel. Bon, c'est pas mon mot soupçonné, mais il y, a, une accusation du Parti démocratique sénégalais à l'endroit, bien sûr, de, euh, de Amadou. dinañ mhm. mhm. de report. Mhm. mais en ci ay tappale. ak jaay doole. y a que ça à la veille la campagne loolu c'est malheureux c'est triste et c'est inadmissible. par rapport à une démocratie comme la nôtre. moo tax. ñun au sein du grand parti au sein de la coalition Gakou 2024. ñu jàpp ne. Mhm. Euh, il est habitué des faits. Mhm. yàgg na jaay doole mais cette fois-ci. Mhm. Euh, dafa ëpp à la parce que cette fois-ci euh, li nga xam ne moo nekkoon bànqaasu réew mi. ñu yàgg ko namoo saa su ne. ak fépp ci àdduna bi. mu suñu démocratie moom la touché au plus profond. moo tax nag ñu ne temm taxaw. fas yéene xeex ba moom li nga xam ne nii mooy volonté mu dellu ci ginnaaw parce que nag lépp tuuru. ok euh, ok léegi monsieur monsieur Diaw est tey jii yéen xaaroon ngeen ni euh, ni élection yi daan ko reporter parce que euh, bu ñu xoolee laata li yëpp di am coowal commission commission d'enquête parlementaire bi maanaam précipitation bi nga xam ni am na ko jëm ci jéego yi ngir taxawal ko est-ce que yéen mënoon leen liir que ni maanaam lii moo nekkoon jubluwaay bi. Mhm. depuis a le Sénégal a commencé à voter mais depuis très très très longtemps ay dix huit cent. Mhm. kon njottoo leen njottoo leen ko woon. lan lu parce que mhm. président Macky Sall il est pour reporter une élection présidentielle. moom pour mu nekk président la constitution moo garantir ne. ñun askan la ñu république la ñu. te ci république boobu dañuy tànn kenn. te ñi nga xam ne ñoo exclure sur les listes électorales ñooñu ñooy fal. ñu fal ko loolu mais loolu muy charte nday charte réew mi mm. la constitution mayu ko benn yoon mu mm. yokk wala mu wàññi mm. la preuve en 2016 ñun li taxoon ñu gën taxaw di xeex au niveau de Gorca wax ja ci référendum bi parce que dañoo jàppoon ne président Macky Sall Gorca wax ja mais ba demee conseil constitutionnel le conseil constitutionnel dañ la ko mënoo cee yokk mënoo cee wàññi mandat bi dafa intangible à de ce moment moom il n'a prérogative pour yokk wala mu wàññi te lii mu def nii mooy damaa yokkal sama bopp. Hmm. te loolu c'est inadmissible. Hmm. moo tax ñun xaaruñu ko parce que waruñu ko xaar parce dëkk bu mel ni Sénégal. Hmm. ak sa démocratie. waruñoo xaar kenn. ak koo mënti doon. fut-il président de la république nga taxaw ne da yokk sa mandat boobu. wala wàññi. législative on peut local on peut comprendre compte tenu du moment et des mais quand il s'agit de de l'élection dama jàpp ne. Mhm. kañ ñuy fal il doit a la clé de voûte de cette nation. Mhm. de la république à de ce moment. Mhm. kooku du moom mooy tànn askan wi ñoo koy tànn. mais toog sa kër. wala palais de la république. yor sa bic yor sa feuille xaatim ne li ngeen ma dénkoon ci durée bi. yokk naa durée bi un kon ça veut dire que motif yi nga xam ne avancé na ko euh, doy leen conflit d'intérêt euh, conflit d'intérêt diggante conseil constitutionnel ak assemblée nationale double nationalité Rose Wardini moo li nga xam ne mooy l'invalidation de Karim Meïssa Wade xoolaat li nga xam ne moo di processus électoral bi comme ni ko parti démocratique sénégalais sàkkuwee. non ce qu'il faut comprendre mooy euh, déjà motif yi ñu avancé ay soupçons la dans un premier temps mm. soupçons de corruption par rapport ba pare kan la soupçonné mu ne son premier ministre mais bu fekkee ne premier ministre ba la soupçonné mhm. te ne moom moo doon ger mhm. mais il n'a qu'à démettre le premier ministre mhm. mais il le laisse continuer à être premier ministre moom aussi amul ngor gu toy ni mu démissionné de sa gouvernement ba xam ne nii ka jiite ka ki nekk chef exécutif bi moom moo jàpp ne parce que lii lépp mu ko Macky Sall accepté loolu yàgg na fee kaas yàgg na fee proposer ay mbir mais kenn fulaalu ko président Macky Sall ànd ci woon. Mm-hmm. report bi c' la volonté mm-hmm. peut être il a cherché des subterfuges jéem a wéeru ci ginnaaw PDS. PDS a joué le jeu keneen noonu keneen noonu mais en réalité c' lui l'unique responsable de sa et c' uniquement sa volonté. Mm-hmm. à partir de ce moment. Euh, suspicion. wala ay soupçon bu taxe ñu jël lu mel ni élection présidentielle. ne dañ koy repousser y' problème. je donne un exemple très simple supposons que ces soupçons-là ne <laughs> mhm. sur la base des soupçons-là Macky Sall repousse na élection mhm. sur la base de d'autres soupçons quelqu'un d'autre une fois au pouvoir pour repousser l'élection mhm. ça c'est inadmissible a une démocratie mûre mature président Macky Sall nous a fait reculer plus d'un siècle parce qu'il a cassé les fondements de cette démocratie Mm. et bu ñu xamoon ne nii lay mujjee. Mm. en 2012 mais mais quand même aussi monsieur Diaw ñu d' accord que ni euh, processus électoral bëri woon na coow loolu parrainage bi également ñu ko décrier ne war na luñ ci bëri na luñ ci war a saytuwaat. Ah, yéen yéen yéen d' accord ngeen ci loolu. waaw wala wala wala wala déet. processus électoral ci réew mi. Mm-hmm. Mm-hmm. yàgg naa bëri coow. Mm-hmm. ñun on était euh, euh, parti au second tour ci parrainage bi. Mhm. am 8888 doublons. Mhm. bañ ko remplacé. Mhm. ñu ne ñu amaat ngeen 700 doublons mais il vous manque 400 parrains. il nous manque 400 parrains ñu am 700 ñu ne ñu doo leen ko remplacé. ce même processus s'est reproduit en 2024. yàlla dogal ñu jàll parrainage haut la main on a le meilleur dossier de parrainage. ñi nga xam ne nii recalé nañ leen. ils peuvent crier ils peuvent dire ce qu'ils veulent mais man li ma jàpp mooy processus bi la validation définitive des candidatures a été faite le 20 janvier par le conseil à partir de ce moment élection rek moo ci teg les règles du jeu. dem ba ci biir match bi ne changé. loolu kenn du ko moo tax d'ailleurs quand les recalés ont écrit cette fameuse lettre au président de la République. Mhm. finalement personne n'est allé entre euh, répondre à l'appel foofu dafa fa dafa fa bëggoon a sukkandiku également. Mhm. pour pouvoir repousser les élections. moom wax dëgg foofu la njëkk a taxawee. oui ngeen bind ko rek mu ne automatiquement mu ne. Mhm. je vous bu waxtaanee ñoom ba pare mhm. ne du euh, avec le président Macky parce que tout simplement foofu ñu tàmbalee bu ñu fa continuer woon. effectivement ce report là va être sur le dos. à partir de ce moment ñoom bu boobaa askan wi dina jàkkaarloo. Mm-hmm. moo tax ñu bari mujj ñoo dem. Mm-hmm. moo tax ma ne la. Mm-hmm. tout ça est fait uniquement. dans la volonté du président Macky Sall à repousser ces élections là. d'accord oui les forces de la nation. am na lu ñu ko woon ces deux deux deux jours. te ça va continuer crescendo. parce que gëm naa ne. les sénégalais sont épris de justice. fii dëkk bi dëkku jub la ak dëkku justice la bu fi amul. li fi xew lépp. de deux vingt et injustice la bu ñuy teg ci kaw nit ñi moo tax sénégalais yi di riposter sénégalais yooyu doon riposter daaw daawaat ñëpp ñu ngi fi te lii moo gën a graaw luy graaw. Mm-hmm. à partir de ce moment les sénégalais vont mesurer à sa juste valeur cette forfaiture et vont la bataille pour que demain le président Macky Sall puisse réguler face euh, à ce peuple digne qui depuis très longtemps. s'est battu pour asseoir une démocratie forte. d' accord sànq également yaa ngi koy wax ci say kàddu parce que la ko jiitu aussi bokk na ci 41 ñu tuddee seen bopp ay spoliés euh, ñu jàpp ne nañ leen génnee ci li nga xam ne moo di pré euh, élection présidentielle bi ñeel contrôle parrainage bi tegwul ci yoon ba tax ñu sàkku euh, ngir ñu daal di saytuwaat li ni mel alors ci déclaration bi nga xam moom le président de la république daal dina koy def la mu wax moo di li waral ñuy toxul élection bi bokk na ci ñu daal di woote ab dialogue inclusif boo xam ne dina regrouper tous les waxtaan mën a déggoo su ko defee ñu am une élection transparente ña ca war a bokk bokk ña ci warta bokk également ñu xool nañuy daal di def alors ndax yéen dialogue boobu noonu euh, jàpp ngeen ni euh, war na mën a nekk waaw wala déet ndax am pare ngeen yéen pour bokk ci boobu la dialogue. am na loo xam ne c'est du sabotage. Hmm. am na hmm. élection yi la kenn warta dàq waxuñu waxi dialogue. Hmm. waxi dialogue. waxuñu ko c'est-à-dire actuellement avant de dépasser ce point là. point boobu la ñu war a vider mooy élection dafa war a am le 25 février 2024 on est tout. mais mais monsieur mais mais mais mais mais monsieur Diaw mais monsieur Diaw. assemblée nationale euh, acte na. la décision li ci des mooy conseil constitutionnel mais ci li ñuy mën a tënk mooy élection yi le 15 décembre la jëm loolu mooy li fi am actuellement. conseil constitutionnel moo ci des. Mhm. ñun on est des acteurs politiques. oui le président Macky Sall yàgg na dem dara le 23 juin la. Mhm. le président Wade avait reculé. oui. le président Macky Sall va reculer face à la volonté populaire. Mhm. gis nga ma la dara. la souveraineté revient au peuple sénégalais. Mhm. tey jii moom la mu doon peuple sénégalais moo ko jox. Mhm. moo tax ma ne la quelle que soit la situation. bu peuple bi bëggee dara peuple boobu loolu mu bëgg loolu le président Macky Sall di doxal. moo tax ay acteurs nañ ko au niveau de l' assemblée nationale. cette assemblée de honte d' ailleurs puisque boo xoolee ni ñu def. Euh, euh, les les les les les députés de l'opposition mhm. mu nekk lu ñaaw lu ñëpp ñaawlu. Mhm. bu ñuy voté loi nga indi GIGN wala gendarmerie. teg mhm. ci chambre ba nga xam ne nii c'est les représentants du peuple. loolu lu ñaaw la ba ci kanam daal. mais je dis au-delà de tout ça. moo xam ñu voté ko moo xam ñu promulgué la loi moo xam lu mu mënti def. je dis face à cette volonté populaire. de pouvoir ñu def élection yi le vingt cinq février deux mille vingt le président Macky Sall lan moo ci nar a nekk yéen waa grand parti euh, seen seen stratégie pour wane seen ñàkk ànd ci ci bi. Hmm. parce que aussi on a vu euh, les Mimi Touré et autres ñoo xam ne génnoon nañu wàcc sur. Euh, ci ci ci mbedd mi. waaw waaw d'accord ñoom ñëpp ci ci ci candidat recalé yi lañ bokk parce que aussi on a vu Anta Babacar Ngom qui a été candidate officiellement retenue par le conseil constitutionnel voilà donc ñoom ñëpp ci lañ bokk voilà lu tax gisuñu waa waa grand parti bu Malick mhm. mhm. a dit que ñun mhm. lu tax kenn gisul leen

notre position mm -hmm. qui est sans équivoque mooy non à ce report mhm. parce que lii c'est un recul démocratique c'est-à-dire man j'ai même l'impression que mm -hmm. les Sénégalais sax ba léegi mesuré gu ñu mhm. euh, les les les report bi ni mu nar a yàqee suñu réew mhm. parce que au-delà du report dafa am lu bari mais les engagements au niveau international tey nga les États-Unis li ñu wax gis nga CEDEAO li ñu wax les organismes internationaux mhm. ñeneen ak ñeneen même les engagements financiers mhm. day am impact les engagements économiques par rapport à notre économie nationale mhm. donc loolu yëpp boo ko dajalee la ci volonté wu benn nit il dit non je reporte parce que je veux encore avoir dix à faire ce que je veux faire mooy lan mooy essayer encore de réduire l'opposition à sa plus simple expression est-ce que est-ce que. mais bien évidemment gis nga gis nga mm-hmm. ak taxawaayam. Mm-hmm. tey jii ñoom ñëpp ils savent que. Mm-hmm. parce que il a fait un mauvais casting. il a choisi Amadou Ba. il n'a même il n'a jamais gagné son bureau de vote. il n'a jamais gagné son centre de vote. il n'a jamais gagné son département. il n'a jamais gagné sa commune. mu def un mauvais casting choisir ko. il savait nettement que bu ñu demee élection Amadou Ba du dem sax deuxième tour. bu jëlul cinquième septième lay jël. loolu nag quand il c'est uniquement cette volonté mm-hmm. qui anime euh, l'action du président Macky Sall à reporter ces élections du leneen ay soupçon de corruption ak ay leneen ak leneen ak leneen mais ñun en 2019 bu ñu neexoon ñu ne on soupçonne euh, le conseil constitutionnel d'être corrompu mm-hmm. bu ñu ko waxoon est-ce que ça va faire euh, reculer ces élections non je pense pas mm-hmm. donc ay soupçon wa wala non gis nga je vous dis une ñun par rapport à la double nationalité nous sommes très clairs là mm-hmm. bépp candidat. Mm-hmm. bu am double nationalité. Mm-hmm. dañ ko war a saytu ba xam ne kii am na double nationalité ñu génne ko ci élection. mais du ñu yem foofu dañ ne au-delà de cette de de de la double nationalité. bépp candidat qui n'est pas en règle avec le fisc. fayoo impôt. dañ la war a saytu ba xam ne yow mi amoo crise fiscale ñu génne la ci élection yi mais là ça n'empêche en rien ñu dem élection le nit la validé mën nañ laa xëcc ndànk rotti teg ndële parce que par jour nga def da ngaa fen askan wi. Mm. fen conseil constitutionnel tenir ko en erreur. Mm. à part de ce moment bu ñu demee ba saytu xam ne yow mii. Mm. vous n'êtes de nationalité vous n'êtes de nationalité exclusivement sénégalaise. dañ la war a génne bu fekkee ne tu n'es pas en règle avec le fisc dañ la war a génne le reste des candidats va compétir. ku yàlla jox ndam ñu xam jox ndam. Mhm. et je que l' opposition la jox ndam ñu redresser réew mi. Mhm. parce que tous les Sénégalais ont marre de ce régime. Mhm. c' ça la vérité. waxagoo ma lan mooy seen plan seen plan de lutte. mais xam nga xam nga xam nga madame je suis tey jii toute l' opposition à parce que aussi parce que waaw parce que gis nañ gis nañ ñenn ci kuje gi ñoom ne dañuy dem euh, euh, kon. Euh, non non pas non pas battre campagne mais dañuy dem clamer affaire au niveau du du du du conseil constitutionnel. voilà maintenant ndax yéen ndax yéen da ngeen ci ànd ou soit da ngeen am beneen plan de lutte boo xam ne moo uteeg ñoom bi nga xam ne moom la ñu am. c'est bien. Parmi les 19, mm -hmm. il dépose. Parce que son candidat, en mm -hmm. je ne pense pas qu'il va mhm. mhm. Mhm. de l'opposition, le président Gap est au niveau du Conseil constitutionnel le recours pour dire non à ce report. Très bien. Au-delà de ça, mm -hmm. nous, allons battre, nous allons continuer à battre campagne aux côtés des 18 autres candidats. Mhm. Parce que c'est le mot d'ordre des candidats, mhm. c'est le mot d'ordre de l'opposition. L'élection mhm. va tenir le février, tous les candidats vont battre campagne. Et tous les candidats vont continuer à battre campagne. Caravane de Guin, continuer de Maintenant, au-delà de ça, il y a un combat juridique lié effectivement à l'Inga

l'opposition n'est pas divisée. ah mais am am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne d'accord nañu d'accord nañu reporter élection yi pour ñu dem vers un dialogue mais y en a plusieurs bien sûr. y en a beaucoup. non parce que y en a beaucoup. Mm-hmm. si euh, mm-hmm. je je termine. Mm-hmm. qu'ils sont pas de l'opposition. je parle pas de mais sénégalaise réunie autour de ses candidats. disent non dit non. a ce report-là. Mmh. et fait un, une campagne commune. Mm. pour ensemble montrer au peuple sénégalais. Mm. ou bien montrer à la face du monde que Macky Sall a pris une décision impopulaire et que le peuple sénégalais n'est pas d'accord. Mm. loolu moom il ne faut pas qu'on dans la diversion man gëmuma ay opposition bi xoolal kii ak la mu taxaw la mu def ak la mu kii damaa jàpp ne. en temps de combat. ñun ñëpp ñoo war a serrer les rangs. Mm-hmm. même bu fekkee ne da ngay joxe nit ki kii nii sax tóob la. Mhm. day yàq si wala lu mu mënti doon. Mhm. en temps de combat bu nee da lay waru si ñëwal. Mhm. na ñëw parce que guerre bi xeex bi dafa toll fa nga xam ne nii. il faut que les gens fassent preuve de tolérance mais également ñu bokk même ligne parce que président Macky Sall. tant que seere wu ñu bokk même comme un jàkkaarloo moom ne ko lii dellu ci ginnaaw. il va continuer ce qu'il veut. te bu boobaa si l'opposition est divisée duñ ci mën dara alors sànq aussi yaa ngi yaa ngi wax ni xeex bi xeexu euh, askan bi tamit ci lañu bokk parce que du yéen acteur politique yi kepp alors tey jii ci opposition bi mbaa yéen ci seen taxawaay naka ngeen fas yéene euh, kon daal di mën a bokk ak askan bi maa sax wax ak ñoom ñu génn adhéré ci li nga xam ni moo di tey jii seen seen position. mais ku gis les manifestations d'hier et xam ne. askan wi génn Euh, li ñuy def nii. sensibiliser les populations yu xam ne les enjeux dépassent même les acteurs politiques. Mm. tey lii Macky Sall bëgg a def dépassé na les acteurs politiques dépassé na nos personnes. Mm-hmm. c' est le Sénégal. Mm-hmm. c' est Sénégal qui est en mm-hmm. de ce moment. tout un chacun parmi les Sénégalais da war a taxaw du côté de l' ne ko lii duñ ko naan. te nag boo xoolee tey jii boo génnee ci réew mi. nga xam ne réew mi yëpp. on a tourné la page du président Macky Sall. Mm-hmm. on attend juste le 2 avril. ñu def mm-hmm. passation bi keneen ñëw redresser mm-hmm. daal foofu ngeen ko jàpp. foofu lañ ko jàpp kon ba léegi nii jàppoo leen élection yi dina dem. le 15 décembre parce que y' a quelqu'un qui qui s'est il est un président de la république qui fait un discours en disant que yokk naa sama mandat. ba fii yéen jàpp ngeen ne élection yi dina am février. sur quelle base. sur la base de la lutte que nous allons mener. Mhm. pour que le président Macky Sall par rapport à sa décision de faire reculer les élections c'est aussi simple ça. ñun mhm. on est des acteurs politiques. Mhm. fii Sénégal. lépp luñ fi am les acquis démocratiques ont été acquis de haute lutte. oui. ay génération et génération générations taxaw xeex. Mm. ba am ay acquis démocratique yu solide benn parti moo fi amoon. Mm. ñu jugee fi ñaari parti ñëw ñetti parti ñëw ba tey multitude de parti am fi. Mm. la presse dem ba acquérir sa liberté d'expression. ak leneen ak leneen mais ay génération doo ko xeex. buñ ko fekkewul sax ñu nettali ñu ko. à de ce moment fanoo wax na ko. chaque génération a sa mission. de quoi trahir, hmm. soit nous remplir. Hmm. Et je pense que les jeunes de ce pays sont plus que déterminés hmm. et conscients à pouvoir remplir fidèlement et de manière forte leur mission. parce que li tax aussi mënoo leen ànd ci lépp parce que li ngeen li ngeen jot euh, euh, def ci li nga xam ne moo di euh, coowal parrainage beeg pré campagne yi ngeen doon def aussi. takku naa xam Mm-hmm. buñ ko qualifier ci mm-hmm. ay li ngeen jot a def sur le mm-hmm. plan financier wala campagne bi noonu moi j'ai eu la chance le privilège même je dirais de faire quatre fois le tour du Sénégal ànd ak le président Ndao bañ ñuy recalé ci parrainage deux mille dix-neuf boobu fekk na ñu def le tour du Sénégal fekk na ñu am ay parrain yu wóor fekk na ne ñu jàpp ne bien bien bien bien bien bien bien vrai aussi bien bien vrai aussi seen seen seen jàll aussi jaaxal nañu bëri ah. parce que ni ni ngeen def ba jàll ni ni Malick Gakou def ba jàll aussi ump na ump na ump nañ xel xel yu bëri. oui. waaw mais ñëpp xam nañ mais mais ñëpp ñëpp li ñu xam mooy Malick Gakou amul boobu popularité. non non je suis désolé loolu c'est toi qui le dis. je te donne un exemple très simple. en 2019 nous avions validé 52 000 parrain. actuellement lan la ñu doon laaj 44 000 parrain. ñun en mais am pare ak popularité c'est pas c'est pas la même chose ah. waaw. est-ce que Malick Gakou bu génnoon taxaw ne jeunes yi nañu génn jeunes yi nañu génn euh, autour donc combat boo xam ne porte na ko est-ce que di ngeen am trois personnes buy topp seen ginnaaw. mais non xam nga man a été Je suis le numéro 2 de l'AFP. Très bien. L'AFP, c'est le parti qui avait porté Moustapha Niass. Mhm. mu jël troisième élection présidentielle. Mhm. donc c'est un leader confirmé. Mhm. il est sorti de l'AFP il a créé le grand parti. oui depuis 2015. man nee naa j'ai fois le tour du Sénégal. tour du Sénégal alors. oui on va nous avons des militants et à partir de ce kooku son code de popularité. ou bien son, sa représentativité au niveau, national et international, mm. on en disconvient pas. Mm. Malik Gakou en 2010 a validé 52 000 parrains. Très bien. Donc, pour moi, 2024, il y a eu ça, conseil constitutionnel. Mm. bu lépp jaaroon yoon. dañ naan Malick Gakou yow waroo bokk sax ñi ñuy déposé à parrain. parce ah, que lañ lay laaj. alors que validé woon nga cinquante deux mille. Mm-hmm. mais teewul. comme bi on a validé pour cette année cinquante quatre mille parrain on a le meilleur dossier. très bien. à partir de ce moment. <coughs> n'oublie pas que le président Gabou il est l'homme de la banlieue. Mmh. n'oublie pas que le président Gabou. Oui. la banlieue c'est le Sénégal en miniature. Mmh. par conséquent le président Gabou c'est l'homme du Sénégal. Mhm. d'ailleurs même les jeunes du parti disent que Gabou mooy Sénégal. donc ñun li ñu gëmoon mooy bu ñu demee élection yi on va remporter ces élections mais là n'est pas le débat. fi toll nii. Mhm. le Sénégal comme il a dit ce matin est à la croisée des chemins. Mhm. lii ñu bëgg a def. warut a maay gagné gagné wu maag bu léegi yooyu yëpp la teg de côté. Mhm. def benn bloc avec tous les autres candidats. Mhm. ñu ànd xeex lii nga xam ne nii président Macky Sall mi ngi ko bëgg a réew mi. te mhm. jubluwu ci dara lu may nasaxal réew mi. nasaxal les institutions comment on accuser le conseil constitutionnel nga xam ne il est pratiquement au-dessus de de de de. c'est le parti démocratique sénégalais non j'ai dit attention. oui qu'il faut comprendre. c'est quoi mooy le n'est qu'un moyen de la chaîne. Mm-hmm. c'est la volonté du président Macky Sall. soxna si. il faut que ñu bañ a lëndëmal xelu nit. Mm-hmm. Macky Sall. Mm-hmm. n'oublie pas que jàpp na fi xel Karim Wade ci kaso bi. ba parti démocratique sénégalais di doon parti démocratique sénégalais. ba le leader charismatique maître Wade di ko jiite. kon su la déggee. à ah, part de la déggee da bëgg a wax ni. maître Wade a dee. ma la déggee da nga bëgg a wax ni. Macky ak parti démocratique Sénégal ñoo lëkkaloo. dama ne dama ne. li ma bëgg a wax bu ma dégloo ma wax. ayca dama ne. oui ba parti démocratique doog a perte pouvoir bi. Mhm. nekk un très grand parti. Mhm. le leader charismatique du parti. Mhm. maître Abdoulaye Wade. oui jugee ci nguur gi. Macky Sall moo jàpp doon tëj. ba mu ko jàppee tëj le président euh, Abdoulaye Wade a fait son retour à Dakar. ba mu ñëwee. il a remuer ciel et terre teewul am ngeen ko. Mm. parce que neexutoon Macky Sall. oui la volonté de Macky Sall c' était d' emprisonner Karim Wade. Mm. et après l' mm. mais tey jii lép lu waay def. ci réew mi mu jàll par rapport ak lii c' parce que c' la volonté du président Macky donc le man je n'ai rien à dire avec le PDS au PDS. li ma jàpp mooy. quel que soit ñoom seeni action et autres. bu mm. neexul Abdoulaye wax bu neexul Macky Sall. Mm. du jàll. Mm. donc nag report bi c'est lui qui a fait le discours à nation à l'état avec benn euh, double nationalité la kii am. am na ay suspicion am na ñuy kaas fii parce que mais ñaata nit ñoo fi kaas deux mille vingt et ñaata nit ñoo fi kaas. mais sur la base suspicion de soupçon de casse rek je reporte l'élection. c'est trop facile. et le accord une une dernière question laataa ñuy yëkkati jotaay bi euh, seen leader di Malick Gakou euh, réew mi lay laaj te ku xa koo xam ne dafay laaj réew mi xëy na di nga programme boo xam ni moom nga leen di jagleel alors aujourd'hui tey jii bëri na ci problème yoo xam ne Sénégalais yi ñu ngi koy dund lan moo nekk ci seen programme te nekk jafe-jafe boo xam ne war nañ ko mën a rectifier muy loo xam ni régime bi euh, faussé na ko. on l'a dénommé PASS. Mhm. programme alternatif suqali Sénégal. Mhm. parce que réew mi lañ bëgg a suqali. Mhm. parce que réew mi métti na. secteur boo jëlee métti. rawatina nag les différentes franges de la société. jeunes yi femmes yi. mag yi xale yu ndaw yi ba liir yi doog a juddu sax. foo laal day métti. parce que liir yi doog a juddu bari na ci ña nga xam ne nii dañuy juddu seen yaay loru wàcc wala ñoom ñu wàcc. loolu nga xam ne nii plateau médical boobu. la amul moo tax loolu secteur de la santé. D'ailleurs, c'est pourquoi mm il a créé sa fondation Maternité Très bien. Pour répondre à ce problème euh, de mortalité infantile. Mais au-delà de ça, mm -hmm. programme bi nga wax. Mhm. programme bi dañu jàpp ne dañu war a industrialiser le Sénégal. Mhm. faire en sorte que dëkk bi nekk un pays industrialisé. Mhm. loolu ñuy permettre réew mi jeunes yi am liggéey. ñii jàng jàng normalement. santé bi dox leen lañ leen a dox. koom bi yokk. on n'a pas le temps sinon j'allais me développer point par point. secteur yi nga xam ne mhm. lépp. Mhm. laal nañ ko ci programme on a un très bon programme. parce mhm. que na la ñu amee programme. dañoo dem ci àll bi wax ak askan bi taataan seen i jafe-jafe ñëw tëgg ci programme. par exemple justice. et au-delà du programme. dañoo am ce qu'on appelle le plan de résilience. de trois mille milliards. ce plan de résilience day répondre rapidement aux problèmes liés à l'extrême pauvreté. de sorte booy teg plan programme da nga programme bi d'ici cinq ans d'ici dix ans. Mm. mais d'ici cinq ans d'ici dix ans pour nga industrialiser réew mi. Mm. bu boobaa nit ki mënta xiif. Mm. nga dem wuti ñëw am tuuti weccal jox seen yaay ne leen dem leen ma demal marché le temps que muy dem marché di togg au moins nga jënd ci soo jox xale yi ñu lekk. moo tax au-delà du programme. on a mis en place le plan de résilience qui va répondre rapidement. aux besoins liés au à l'extrême pauvreté. alors lu weesu loolu dans le secteur de la justice ndax am ngeen ci ay réformes parce que bëri na ci jafe-jafe yoo xam ne sénégalais yi oui. quiconque oui quiconque yan yan yan yan réforme ngeen ngeen ngeen ci am seen programme. déjà ce ce ce conseil constitutionnel. Mm. va être complètement éliminé on va mettre en place cour constitutionnelle. Mm. cour boobu moo ñu permettre le président de la république du tabb ma euh, euh, kii yëpp. nu mu tudd sax du tabb. les membres du euh, conseil mhm. mën na tabb la moitié. Mhm. wala moins de la moitié li ci des euh, peut-être UMS wala ku mën doon tabb ko mais ce mhm. qui est mooy. le format de ce conseil constitutionnel là danañ ko changer yóbbu ko cour constitutionnel. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. tey jii le fait que parquet bi. nekk directement en link avec le ministère de la justice ba nga xam ne nii ay instructions mi ngi ko jëlee ci président de la république. ku ko neex mu tëj ku ko neex mu dóor mandat de dafa war a changer ci réew tey jii fi réew mi toll. Mhm. ak injustice bi am ci réew mi. Mhm. bépp candidat je parle même pas de mon candidat. oui bépp candidat bu amul ay réformes. Mhm. yu solide par rapport à cette justice là. gëmu ne Sénégal yi nañ leen jokkoo parce que depuis plus de quatre ans voire cinq ans. et même on peut dire douze ans de Macky Sall li fi gën a nekk problème justice ci la bokk. oui bu weesoo justice l'aspect social. def na ko ay bourses familiales ak lu mu mën mais teewul la pauvreté extrême sévit tout le temps au exponentielle. moo tax sur le plan économique sur le plan social et sur le plan de la des réformes majeures seront observées. très bien merci beaucoup monsieur Mor Diaw. c'est moi qui vous remercie. amoon nañu mbégte dalal la dans politique ci KS TV. jaajëf merci beaucoup alors donc mi ngi noonu moo nekkoon euh, suñu invité tey monsieur euh, Mor Diaw nekk euh, coordonnateur des jeunes yi nga xam ne ñoo bokk ci biir grand parti bu Malick Gakou tey moom lañ doon amal waxtaan gis ngeen kon ci point yi nga xam ne moom lañu doon sekkan nag moom mu nekk les dernières actualités ñeel tolluwaay réew mi politique bu Sénégal ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mais également jaajëfal gu mi nekk derrière la caméra di leen di leen jaajëfal également yéen chers internautes yi nga xam ne à chaque fois da nga ñuy bàyyi xel xamante ni moom lañ fi wax jëm ci wàllum information donc on se donne rendez semaine prochaine incha beneen invité euh, ci li nga xam ne moo di tribune politique ñu waxtaanee toujours tolluwaay réew mi merci beaucoup et au revoir